tey ñu dem ci coaching bi nga nekk mm-hmm. ci milieu lam mu doon milieu bu jafe évoluer mm-hmm. ku ne xam ne aussi mbër dafa naqaree liggéeyal tey nan ngay liggéey ak mbër yi so souvent contrat lay doon wala say critère waaw mbër yi su may liggéey ak ñoom contrat lay doon comme par exemple am nga combat nga ne ma ah coach am naa combat ma ne la comme par exemple un mois de si combat bi wala deux mois de si combat bi wala combat bi bi mu taxawee tak nga wax ma ko parce que am ñoom ne dañuy bàyyi dem États-Unis wala dem France ba ñëw mu des mois ñu ñëw wax ma ko may la ah ñu waxtaan ma ak moom may la nangam ngay fay lii mooy cachet bi nga d'accord seeg man ñu commencé liggéey prendre travail mm-hmm. saa boo xëyee lii ngay def ngoon gi boo pare contact aussi lii ngay def waaw cachet yi kot si ngi ciy gis boobu baax waaw cachet yi moom <laughs> dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla parce que dara parfait wul. parce que gars yi dañu naan mbër moom sëriñ rek a mën a lekk xaalisam. waaw <laughs> non mbër moom wax dëgg yàlla moom xam nga gaa benn côté ñoom sëriñ yi moom dinañ lekk seen xaalis bu baax mais aussi mbër bu xam esport mbër bu bëgg lu baax. Mm-hmm. di nga gis coach bu baax nga fay ko sa xaalis mu entraîné la. Mm-hmm. entraînement boo xamante ne nii boo demee si làmb ji di nga si gis njëriñ boo sumee ko kenn du kii fan la newoon. Mhm. kenn du ne kii kan moo ko entraîné. Mhm. parce que coach su làmb ak coach su leneen ak leneen coach su boxe coach su taekwondo coach su mhm. dafa ute. dafa ute comme tey Waalo Ron moom mooy coach bu mag bi. sama papa maa ngi koy nuyu de passage xam bëre xam sport xam lépp. tey jii loolu la wax si làmb rek jàppal loolu. waaw ñoo yor wàllu physique ak box bi. waaw man ma yor wàllu physique ak wàllu box di ko jàngal waa écurie Waalo. Hmm. ak eh, mbër yi may entraîné yëpp. waaw ya, bu weesoo écurie Waalo yan champion la fi Zil mos a liggéeyal. waaw eh, ma xool bu weesoo écurie Waalo entraîné naa guy gi combat mook Siteu. Hmm. maa ko entraîné dèjà mu doon combat bu marqué aussi. Hmm. ak eh, kay rek combat mook quent entraîné naa ko waaw ñooñu daal laa xam ne entraîné naa leen ci làmb ji. Hmm. waaw ah, jën kayre tamit foofu laay taxaw tuuti moo Quench gisoon ne la nga def ci préparation bu am solo ba ci open press yooyu yëpp gisoon nañ la mais combat mujj bi gis ñu coach Zil ci ci wetu jën kayre. waaw euh, combat jën bi passé dafa tombé ak Lac de numéro 2 di bëre. Hmm. mais teewul maa ngi koy woo di fa dem mi ngi may woo aussi di ma laaj ay conseils di ma laaj nan ak nan lay def ma siy jàpp papa am aussi suma papa la père Kayre di wo aussi ñuy déggante kon mi ngi melni séparé wuñ dal mi ngi mm-hmm. melni ñi ngi déggante ma ngi siy was suma ak mm-hmm. waaw mo taxone gisul len ma ci combat yi préparation yoy mais sama loxo ngi ci bir mm-hmm. waaw ñu bari aussi di faral nan jeen athlète bu wax tane mën na xeex la wax yow bi ngay ñëw diko entraîner digënté ko wens yan perfection nga waron def li ci déssone bari na wala liggéey bi waaw jeen bi mu bëre Quench mu ngi fekk mu ngi jóge États-Unis mm-hmm. ñëw andi doole bu mat sëkk andi physique andi coffre andi lépp li ma si def kiiwul da ngay rek xam mm-hmm. nga mottali bi cardio bi xam mm-hmm. liggéey aussi rapidité loxo yi xam nga attaque contre attaque parce que daa doon mbër boo xamante ne ni am na fit te ku am fit dangay mën a jàngal xeex waaw actuellement ñu gis ni tamit euh, ñoom ñi ngi viser benn loo donc mhm. bu ñi mu war a bëreel. Mhm. Ah, gis nañ ñu daal di rejeté ku ci mel ni Zos ni mhm. liñ ciblé mooy euh, fi nga xamante ne tey ñoom Sa Thiès foofu lañ nekk. ak euh, Garga Mbossé ñeneen ak ñeneen est jàpp nga ni Diène ñooñu adversaire am lañ. waaw Diène kay rek ku mu mënta bëreel si làmb amul. Hmm. am na doole am na fit te xale la te gëm na boppam aussi lu jafe si mbër mbër bu gëm boppam. Hmm. jàpp nga ne mën na bëre ku ne. mën na bëre ku ne. Hmm. waaw mais kon souvent nit ñi naan euh, xeexu làmb dañ naan dafa souvent damay dégg ñu wax xeexu mbedd. Hmm. ak euh, boxe normal. Hmm. gars yi dañ naan xeexu mbedd moom mooy gën dox ko boxe normal loolu loo ci tontu. c'est que dafa am lu nit ñi di jaawarle gis nga xeexu làmb ak boxe dafa dafa ute tey jii bi mën na la jàngal xeexu boxe nga dem làmb ja doo acca garde wala ngay léewtoo acca loxoy ci kaw loolu boo ko defee boo dóoree gauche bo doré une deux parce que nit il suffit que nga dóor benn ne yow xom nga surtout ma nga dor bras arrière te mbeur nga xamné day songu comprendre nga kon donc lepp loy def rek dang ko wara tek ci yoon manam mbeur c'est pas la peine nga koy jangal comme boxeur ni ñi xexé garde esquive nangam sangam mbeur dang koy jangal bras avant bu baax bras arrière bu baax les crochets un pas en arrière mu dor épercule crochet gauche xam nga mhm. li ko koy détail yooyu dal nga koy jàngal mhm. mais do koy jangal garde bi nek si kaw muy xeex comme un boxeur mhm. parce que xexu lamb parce que mën na né presque xexu mbedd la mais li am solo moy nga xam fi ngay dor nga xam point yi ngay dor nga bañ a asaaloo say kon xexu lamb agressivité da am solo xexu lamb agressivité agressivité da ci am solo ak lecture parce que mbeuri da ngay gis lamb mu am ba jeex mbeuri duñu sachet remise du ñu bloqué du ñu dóor sax góos bu jub. Mhm. dañuy jékki-jékki arbitre rek ñu lewtoo benn ñaar dóor la ñaari law daw jàpp la kërëb moo tax des fois nga gis mbër boo xam ne jël na si coup boo xamante ni du ko fooge mais loxo neen waroo ko dóor nit bu baaxee waroo ko dóor nit mu taxaw. Mhm. bu dalee fi mu war a dal si point sensible yi mu war a dal. Mhm. ay menton xama menton bi mâchoire bi xama foo ko mënti dóor nit loxo neen kento bi mu dal carrément daa war a daan. daa war a daan waaw warul taxaw. mais lak souvent ñu ko doon gis muy xeex mais léegi xeex pratiquement xeexatul. pourtant mi ngi xeex ba léegi mais mooy li ma sànq rek bu dem da ngay dem ba benn moment boo xamante ne da nga yor benn stratégie booy bëree si mbër yëpp la. waaw ku dem ba toll benn niveau bii nii da ngay am benn stratégie bi nga xamante ne moom ngay bëree foo gis ñu ne la mbër bi waar bi sifflé day dal sa kaw am na combat yoo xam ne day ñëw jël temps waa gars yi souvent di wax diw moo daax xeex ci làmb ji ku nekk di joxe sa xalaat coach Cissé kan la jàpp ni moo daax xeex ci làmb ji. waaw man dama nekk nit koo xamante ne nii suma papa laa ko jëlee du ma ne nit yàllaa ngi nii te gisuma yàlla. Hmm. tamit su may wax sama bopp la gënal du bañ naa la pour man ñi may entraîné ñoo daaka xeex si làmb ji. asi ah, loolu yomb na de. <laughs> non yombul parce tey jii man tey jii soo gis ñu ñu ma entraîné mbër mu dem ñu dóor ko mu daanu. mais tey su ma la limalee tey ku ci mel ni Boy Niang 2 noo gisee xeexam. Boy Niang mën na xeex. Mhm. parce que am na tuuti casu boxeur. Mhm. waaw. Mm, Gris doo aussi mën na xeex am na tuuti casu boxeur parce que da dóor gauche dóor la crochet gauche fausse mhm. garde la. te loxo bi am na précision aussi. Tapha Tine waaw Tapha aussi même chose. waaw ba si Lac de Guiers muy Alioune Seye numéro 2 ñi may entraîné ñëpp bu ñu demee dañuy xeex normal Papa Boy Djiné ama nga mbër yëpp képp ku ma entraîné boo demee boo dooree gauche dinañ xam ne kii ah ki mu jaar baax na hmm. waaw. te stratégiquement wala si le plan technico tactique hmm. Tapha Tine Boy Niang doon combat bu ñëpp di xaar bu ñu xeexee kan nga gis ne tey moom moom lay avantage. Euh, Tapha Tine Boy day doon combat boo xamante ne combat bu bu du nekk bu gaaw bu nit ñi di dañuy xalaat ñoom ñaar. Mhm. parce que boo ñaa fausse garde la Tapha Tine garde normal la pied gauche lay teg boo ñaa pied droite lay teg pied droite mooy fausse garde pied gauche mooy garde normal. Mhm. te boo ñaa day chassé bras avant bi day doublé di gauche. Mhm. Tapha Tine aussi am na bras arrière. am na droite. bu la dalee moom boo amul dëgër laay dëgg da toog kon donc. combat bo xamanteni day am xalaat bu bari tactique technique lepp da ci am. Hmm, cor bi aussi ñu gis ni avantage am la. wa cor bi avantage am la moy li wala du ma sori dal hmm. mais ku ci né am nga mënin dal hmm. ku ci né am nga mënin lim nga Boy ni mën na xeex mais ñu bëri dañ nan dafa dese am safara ci walu xex bi est ce bok nga ak abi. No Boy Niang ku ni mënul xex da nga safara dafa dese am safara la dafa dese am safara si xex bi. mais wam bu la dalé safara la. Boy du asalo ay kuwam du asaaloo kuwam ba pare dafa am bra avant post garde la bra avant bi mi jital daf ko am bo ñam am nga ko gëdd mu melni kula ragal tour arrêt di gauche teuf boko jëlé am bo amul ndëgër lay da ngay tok wala nga perte connaissance parce que des fois nga dig des fois nga gis mbeur dor nit ben coup bu dal teus mu taxaw di ko mana nit boko dure ben ku coup boo xamante ne ni amna effet yow mi ko dor da ngay sentir ni coup bi dal na parce que day répondre sa mbagg mhm. da ngay xamni coup léegi nag moment bi muy xalaat naan di xalaat ne coup bi métti na wala muy saboure métit bi mhm. moment boobu nga war a def action mhm. moment boobu doo fa doo fa fekk dara mhm. boo demee loo boo góorgóorloo tuuti da nga koy daan parce que booba esprit du fa nekk waaw dafa am aussi lu ñuy wax kaaw dëbu des fois nga gis mbër ñu dóor ko tel mu kaaw mais mi ngi kaaw mais mi ngi lay gis Kaawdu comme combat hier wala seetaanoo ko. ban combat la combat Franc Tyson 2. non seetaanuma ko. Ah, gis nañ Franc attaqué ko mu xaw a déséquilibré ñi naan kaaw na wala kaawdiwul. dafoo ah, nañ xeex nañ ci kaw. xeex nañ ci kaw. Mhm. parce que boo gisee ñu naan dafa des fois mën nañu bëre ma ak yow ma dóor la ko rës nga xaw a tartari yooyu noonu loolu la kaaw dëggu nga xaw a tartari mais yaa ngi gis mbër mi am na ñoo xam ne dañuy kaaw parce que kaawoo yàggul ay tiers la mën mhm. na diire dix secondes wala cinq secondes moment boobu buñ la accélérer boo bu la combattant bi accélérer wul rek soo muusee da ngay jëlaat sa connaissance mhm. par exemple mën nga door ni rës mu kaaw mu xam ne kaaw na mu léwtoo reculer ah def les quatre pas les pas latéraux mhm. déplacer wu léwtoo ba ñëwaat doog see nekk mais xeexkat dafa ma la nga fàtte Modou Lo de sànq bi ngay lim non Modou Lo xeex bi muy xeex dafa xawa sacc xexu boxeur touti hmm. modlo Lo xeex bi mi xex dafa xawa sacc xexu boxeur parce que modlo day esquive day dóor euh, direct au foie day dóor euh, crochet au menton té tamit dalay doubler di gauche parce que boko souté sutee ko rallonge sa bu la sasee dalay doubler di gauche dugg sa bir garde. Hmm. daw melni kou lay song nga yaakaar da ngay song dalay song musique sigi le épercule dafa mën combat rapproché. Hmm. ba pare loxo yi dafa am vivacité am précision aussi rapidité bi aussi mi ngi si moom. Mm-hmm. waaw. kontaan ci yow ma bàyyi nga tàggatoo. waaw di nuyu Sénégal yëpp di nuyu sumay wóolare papa surtout ama di nuyu suma yaay di nuyu sumay rakk sumay mag di nuyu suma soxna ak suma doom samay doom sax laa woon a wax sama ñaari doom na ak euh, sëñ Fallou sëñ Fallou Mbacké laa ko tuddee. di nuyu suma xarit. kër gi avant teel a jël soxna bi gis nañ ni xale nga lan moo waral loolu. loolu yëpp mu ngi bokk si teel a nekk responsabilité. Hmm. parce que boo demee ba am vingt ans rek nga am amoo da ngaa war a takk soxna. ah nga am amoo nga mën mënoo. mënoo da ngaa war a takk soxna. Hmm, loolu du risque. risque ah lislaam ko wax <laughs> yaakaar naa ko wala. Ah, waaw. moo tax euh, takk soxna bi te tey jii du du forcé mais maanaam daa doon loo xamante ne boo ko gisee nga mën ko xaw ko mën sax. Mm-hmm. takkal. yan avantage ñoo ci nekk. avantage yi si nekk bari na parce que da ngay nekk un responsable da ngay xam fi ngay teg sa tànk da ngay xam li ngay wax ak loo warta wax. Mm-hmm. xam fi ngay dugg ak ak foo dugg. Mm-hmm. ba pare tamit lépp loo nekk di def si mbedd mi mu doon loo xamante ni safaan la soo xalaatee sa soxna ak say njaboot rek ak say famille rek. da nga koy bàyyi. waaw parce que saa boo xëyee ñu la ah nijaay dépense bi manam lolu fierté la ak gëm ak jom la. xam amna lu la war. amna na amna lu la war dal waaw bàyyi la nga égalé waaw di aussi ñaanal wa écrit waalo di ñaanal run yalla suñu borom defal ko jamm parce que mom bim jappé ba légui mi ngi taxaw si tanku père damay ñew école sax limay def mën na ko ah. sama fils ñëw na duma def dara jox ma sifflet bi jox ma chrono bi maanaam suma waay la daal te fàttewul dem di nuyu mention spéciale ak Alioune Seye numéro 2 kooku mën naa ne taxaw na tànku per nit ku baax la daf may woo di ma nemmeeku buggul dara lu ma metti dara dara dara buggul dara lu ma metti ba si Lac de Guiers numéro 2 aussi xam nga di ko ñaanal Alioune Seye yàlla suñu borom may ko ndam bu seddu guy si mook Issa Pouye papa boo jinnee suñu borom defal ko ndam moom it bi ñuy xale lañ commencé ànd xam nga ay Boy Niang 2 ñi fa am combat ñëpp su ma limee damay jum suñu borom defal leen jàmm may leen ndam géejawaay képp ku am combat ay Sa Thiès ay Gouye Gui Balla Gaye numéro 2 képp ku si am combat ay Mathia Pereira suñu borom may leen ndam bu sedd guy waaw. Euh, voilà mi ngi noonu très mu nekkoon le coach Zil donc bu écrit wàllum kenn doot ko présenté. nekk doom ci feu Mama Ba moom aussi nga xam te ne ñëpp nañ ko ci wàllu sport euh, mais ba léegi rek mun naa ni waxtaanu li ma ci bëggoon c'est vrai que wax na mais Lac xaw na ko tënk xam naa ne am na fu mu jaar mënoon nga bàyyi booy mu wax nag Lac euh, mais nag kontaan nañ ci waxtaan parce que doon interview boo xam te euh, très difficile tey nga décrocher Zil parce que mun nañ ça fait bientôt deux ans ñuy jéem a def ay démarches yi pour mun ko am donc ku ci mel ni waa Ousseynou Dia waa Espagne le grand baay góor ñu ngi koy ziar di ziar aussi père Ousseynou Dia depuis Italie donc di ziar tous les fidèles internautes ñi nga xam te ne ñu ngi bëggee Guédiawaye Info Marley mon ami maa ngi koy ziar di ziar Mountaga ak ñëpp ñoo xam te ne ñuy safoo site bi di ko bàyyi xel di leen jox rendez-vous prochainement merci